nationale mooy fas yéene doon bi Sud Quotidien na président Macky Sall kay moom ma ngay dindiku rek ne li mu def réccu wu ci dara ci waxtaan wu ko BBC dalaloon nag ne lépp lu mu def rek ci loi ak règlement la ko tënk kon nag fii lu ñuy jéggalu amu fi ndax bu amul woon ay ñaxtu ci processus bi nag coow lii yëpp kon du ci am yéenekaay bi di Vox Populi nag moom président Macky Sall ma ngay xamle nag ne du taxaw di jéggalu kenn ci li nga xam ne rek jot na fee xew ndax ñëpp xam nañ ne Sénégal nag ay élections yu libre ànd ak leeraange moom la yàgg tëgg ci réew mi te bés bu ñu falee tànnalee ab njiit lu yees bisub ñaar fukki fan ak ci weeru mars nag dina am chance ngir ma jébbal ko lenge waaye nag bu loolee amul ñaari fan ci weeru avril man damay dem bàyyi leen ak seenu réew yéenekaay bi di Les Échos ne président Macky Sall nag ma ngay xam ne ni daal bu fekkonte ne nag topp nañu rek ay bëgg-bëggam Ousmane Sonko ak Karim Wade nag dinañ doon ay candidat ci yi jongante ndax moom nag foo ko fekk rek ma ngay doxoon jëmale ko ci kawam lu mu ci mënti doon daal ma ngay woote dal ak jàmm ngir ñu daal di koy amal nag ci yéenekaay bi di la Soleil mu fay dëggal ne fan ci weeru avril dafay jóge bopp réew Sénégal keneen koo xam ne rek jamono ji candidat la woon mu di Cheikh Tidiane Dièye ma xam ne nag ne retiré wu na te day dem jàppale ji nag kii di Bassirou Diomaye Faye mu fekk jamono joojee nag lim bu takku ànd ak Amadou Ba Boubacar Camara di xamle ci biir yëglekaay bi ne dina jox ab statut spécial ñii di waa Touba Idrissa Seck ci jamono joojee nag ma ngay sàkku ci candidat yi ngir ñu moytu di amal ay discours yoo xam ne rek dafay lay jëm ci wàllu xeet wala waaso Amadou di xam ci biir yëglekaay bi ne bés bu faloo nag dina fexe ba ñoo di la de guerre yóbbu ko ba ca diwaan bu Jurbel te bu ca noppee nag atum 2025 dina jébbal juróom fukki milliards région bu nekk yéenekaay bi ne jamono ji nag ñu ngi ci waxtu yu mujj jëm ci campagne bi Le Quotidien yëglekaay dellu siwaat ci Rose Wardini ak libéraux yi nga xam ne rek dem nañu ngir dooleel Amadou Ba Cheikh Tidiane Dièye moom fas yéene fekk Jomaay Fay ngir jàppale ko juróom-ñaar fukk ak ñetti i parti nag jug ñoom it ngir taxawu kii l'observateur yéenekaay bi di xam ne nag malaise bi am jamono ji ci biir parti démocratique sénégalais ginnaaw bi ñaar fukk ak juróom ci ay fédération ak i député taxawee fas yéene jàppale kii di Amadou Ba mu merloo ne ndaw yi nag ñoom la gën a bàyyi xel ci programme yi nga xam ne rek candidat yi ñu ngi koy fësal ci jamonoy campagne bi nag lu jëm ci saafara wàllu migration bi ak ay opportunité nag jëm ci ndaw ñooñee Amadou Ba fas yéene na caa indi ay yeesal yu am solo Khalifa Sall di xam nag dana ko jébbal ci ndaw ñi ci assemblée élective ak semi élective yi jamaay fay ni lépp loo xam ne rek ay jafe-jafe lay ndaw yi di jànkonteel danañ fexe ba jële ko fii ndax at mu nekk nag ndax at mu nekk nag fas yéene nañoo taxawal ay junniy junniy emploi ba tey ci lu jëm ci programme yi nga xam ne rek moom la candidat yi di fësal Walf Quotidien moom ma ngay dellu siwaat ci pexe yu yees yi nga xam ne rek war nañ koo taxawal ngir gën a suqali nag wàllum industrie bi ba tax mu ne nag kenn ku nekk yaa ngay teg say stratégie ñeneen ñoo xam ne rek jamono ji mer nañ bay futu ko ci Pape bokk na ci syndicat des travailleurs de la réparation navale ginnaaw ba mu génnee moom jëwriñ ju ñu dénk wàllu napp gi di xam ne ne contrat bu Dakar Nav yegsi na fa ñu ko war a yemale te kenn du ko renouveler tey kenn du ko renouveler ëllëg na bay futtu kii di Abass Fall mi nga xam ne rek mooy seenub secrétaire général ma ngay sàkk ñu daal di koy leeral ndax amul appel d'offre te kenn xamul nag lan moo nekk ci contenu bu cahier de charge waral nag ñu ne bu fekkente li nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi jeexale yëglekaay yi ak libération ma ngay xam ne nag barça wala barsaq ñaari gaal yu yeboon ay sénégalais ñoo teeree ca Dakhla yéenekaay bi ne ginnaaw ba ñu jugee ca Saint-Louis ak ca Mauritanie nag ñaari embarcation yooyee nag ca Maroc la ñu mujjee teeree ci altine ji jàpp talaata ñaari doomi aadama ñàkk ci seen bakkan ba ñuy amal traversée bi nag baabu seen mi nga xam ne rek mooy consul bu Sénégal ca Dakhla ma ngay xam ne ni nag passager yooyee nag ñoom ñëpp ay sénégalais lañu nag te ci ñoom ñooñee nag am na ci benn soxna boo xam ne rek mi ngi ànd ak benn tuut